heure boo sentir ñëw soirée Wally Seck demal c'est le meilleur c'est la santé du peuple. di leen nuyu di leen siyaara euh, di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawfiix euh, di leen xamal ni tere na baax euh, di nuyu faramaare bi yëpp. beneen bu stop njàpp njàpp encore une fois njàpp musique du mbirum tarixa du mbirum diine heure boo sentir ñëw soirée Wally Seck demal c'est le meilleur c'est la santé du peuple. deux millions wala trois millions yi nga am démb yóbbul ko sa yaay jeune bii liggéey sa yaay di dundum da si dimbali sa yaay comprends nga tée le meilleur mun ñoo am fecckat mel ni yow te fecckat mel ni njàpp waaye rek nga war a mun a feccal bul toppatoo nit bul faale nit du mbirum diine du mbirum tarixa musique bu doon mbirum diine Wally Seck mooy jóorin bi am na la moom nga liggéey bu la